Euh, julli gi nga xam ne moom la sëriñ Touba Khadim Rasoul julli woon ci géej gi ñu mën cee jàngatee lu bare bare bare nag damay wax ne sëñ Touba képp koo xam ne danga koy tuddoo euh, ak ci façon bu mën a doon ah ku war a fonk jaamu yàlla nga ku war a fonk julli nga Serigne Touba euh, dafa wax ne julli gi mu julli ci géej gi defu ko ngir jubli ci xar baax dafa toog xaar Moxtaar mi jàll mu laaj tubaab bi ne leen ndax mën na maa julli ñu ne ko déedéet mu xaar ba nga xam ne daruri ji mu ngi waaj a jeex te boobaa nag ah, boo jullee danga fay waaye jooxoo ci waxtu yi sëriñ bi nag bi mu yegsee foofu la daal di xam le ne ah, sauvé bakkanam ah, ngir faat waxtu woo xam ne suñ borom moom moo ko farataal loolu daal moom bakkanam jërlu ko noonu ku ne xam ne nag sëñ Tuubaa moom diggam ak boromam diggam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam Ah, man na ni xayra xadimil Moustapha rek fa indi na ni axdimahu bi Moustapha dafay dëggal ne mboolem loo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf koo indi rek sëriñ bi bu ñëwee loola jaral na ko bakkanam julli gi yi nga xam ne moom la julli woon ci géej gi benn la ci bi mu koy def it bi mu ñibbisee nettali na sëriñ Dame Abdourahman lu wax na ko ne ko bi may wàccee di julli ci géej gi ni nga mel ci am ndox rek laa mel ci am ndox ah, bi may wàcc leeru ma ne su ma wàccee dinaa yéegaat waaye dama koo def rek ngir fas yéenee joxe waxtu wi nga xam ne sama borom moo ko forotal ci man te ma war koo def uh, alimatil aadaau inda al mughriqaat bi annani abdu muni lil wax na foo xam ne inda al munshiaat inda jiwaari zulumaat uh, baaxin kafaani baaxin kafaani yooyu yëpp ay wax la yu bare bare bare yoo xam ne ci am mbindam boo demee da nga fekk mu di leeral musal gi nga xam ne boromam moo ko musal ci uh, tartar yi ak lëndëm lëndëm ak jafe-jafe yi nga xam ne mënoon na koo am ca loola waaye nag ba mu wàccee it boromam natt na ko xool pas-pasam ba xam dara dara dara soppeeku na ci waaye dara soppeeku ci ndax wax na ne tànkam sax dem na bay dugg lu toll na ci aw waxam waaye dara rëfu ci pas-pasam ci ak ngëmam yàllam diggam ak boromam dara rëfu ci ah suñu borom xam ne kii ab jaam la boo xam ne ah, dafa joxe bakkanam ngir yàlla. mu daal koy temmulaat ci ndox mi wax na ne it suñu borom moom la neex tubaab bi gis julli gi nga xam ne julli naa ko ci géej gi ndax ci waxtu woowu gaal gi dal na ci doj woo xam ne ñëpp dañoo tiit daw génn daw googu ñu daw génn moo tax ñu xam ne gis sëriñ bi muy julli ci géej gi waaye moom defu ko woon sax euh, sëñ Talla ngir ngir xar baax dafa ko doon def rek ngir ne li mu war a def dana ko def waaye nag suñu borom ab jaamam waa bu jaayantee mu jaral ko dara moom la leen la ca des moom moo ko yoral sëriñ bi kon dañuy wax ne mbiram noonu la mujj. ñuy ñaan suñu borom barke bi ak xéewal gi ak mbooleem yiw yi nga xam ne amal na ko senegal te ñëpp xam ko yàlla nañu ci am lu kawe suñu jortu bis bi di bis boo xam ne dañ ko yàgg a màggal ci euh, yàggu koo fekkee ci jàmm barke xaadimal Mustafa kon mbokk taalibe yi rek seen bëgg sëñ Tuubaa damay wax ne sëñ Tuubaa moom li ma ciy wax rek bu bokkoon bu fekkoon ne bokkuma ci ah ña bokk danaa leen ñee ñee ñee ba moom it danaa leen catu kooku mooy sëñ Tuubaa xaadimu rasuul